dafa doon lu garaaw mhm. ñaankat su dee gor la buñ la mayee da ngay rus mhm. buñ la bañalee da ngay rus mhm. mais nan ngay ubbee sa téléphone seetaan ni kër na ko may ma mënu ma ko comprendre man du ma expliquer dama lay bloqué c'est ça noo ma jàppee ça va ñaan da nga cay tolloog nit man tey sañ naa ne ñaata nga yore mu ne naa nga ma ne ko jox sañ naa ko ci moom mais sañu ma ko ci kii waaw sañ la ndax seex ngeen ko yegguñ fa mm-hmm. Mm-hmm. mais nan ngay gisee nit TikTok rek jox ma sa numéro jox ma rek dimbale am na la ci <laughs> harcelé la man soo ma ne may ma ma bloqué la lu ñu gis ci réseaux sociaux yi ngay may artiste non mais artiste ba dama mm-hmm. lu ne ak kan ko seqal dëgg mais soo demee bay ñaan nit jublul yàlla ñaan ko sa soxla dama doon waxtaan ak Cheikh Sarr mu ne ma Cheikh Ahmed man du ma ñaan ma ne ko lii maa ngi ci togg suma bopp pour yegg foofu Mhm. mais gëm naa bis ñëw ma toll fi Maodo tolloon ne ku dul yàlla doo xam suma njàmbat. d'accord. Mhm. Maodo mosul yónnee interprétation di eh, di ñaan moom yàlla rek. Mhm. donc nit ñi foog ñu yegg foofu cas social. laa moo tax mënumaa ñàkk liggéey. li waxtaan bi neex yëpp bi ne ma suba doo jaay àndalaa suma xel mi dem nañ. parce que dama gëm liggéey. liggéey man suma yaay ci la ma jur ba bi muy génne àdduna càkkiri la doon jaay mun ngi ci frigo bi. bi mu génnee àdduna leen ko sarax. suma bàyyi loolu la gëm man ci laa ne ma àndalaa bi dégg naa ci lu ne dafa vulgaire saaga xas ba dem ci kaso mais maa ci rek. Mhm. nekk ci rek gëm. suba suba léegi kooku nan ngay toogee. Mhm. naan may ma ta xamoo ko. dëgg la man defuma cas social tey. Mhm. defuma cas social suba. su ma daara jëlee. ak ñi ma xam miin leen. man su ma doon mayee sax as gor laay may. gor gi ñàkkata xam nga yenn saay ñaan ma ñëw. invitation journaliste yi. Ah. Mm-hmm. mais su jeexee ba ma gis seen bët ñuy xerew xerew mu leer ma ne amuñ paas tam mm-hmm. directeur yëgu. ma làmb dara jox la loolooy may ci suuf. Mm-hmm. ci suuf yenn saay nga may dem nduggi marché gis benn maire. di laajte bii ñaata la pas bëggul pompiteer bu bari. Mhm. mais mu ngi xalaat bu jënd ndax dina am. jumbo dina am ah, buuxal la benn diim. mooy xel sax waaw. mais ay may may ay nangam nangam yi ak tuddee yi drapeau yi yi kii. Ah, boobu sax boobu sax maa ngi ciy encouragé boobu mooy mooy. alors Cheikh Ahmed waaye yaa fi ne de bëgg bugguma. ko defee ah yow ma kersa dama la bëgg ma ne la bugguma laa la ko waaw c'est pas méchant. xam bu la dalaloon suba suba ne la Cheikh lan nga may ñaan ci réew mi te soo ma ko ñaanee nii nii nii ma taxaw ci lan nga koy wax suba suba mu dalaloon la njiitum réew mi. juróom de laa koy wax. Mhm. benn mooy prisonnier may leen ñu gis seen jabar yi. Mhm. pour di mën a daanu ñaari yoon ci semaine. visite conjugale am na. waaw amul de. amul amul amul ñu koy xeex ba léegi amul. y ak bracelet yu bees yi tamit war loolu ñu takk. yaa ngi ci benn ñëw a mhm. ñaareel ba mu def ma ministre bu yor wàllu awra ci réew mi. allahu akbar ñaar waaw loolu dafay jaadu. Mm-hmm. ñetteel ba mu jox ma privilège ndax ma ñëwaat ci moom man privilège rek laa soxla. Mm-hmm. Mm-hmm. ñeenteel ba mu bàyyi Ousmane Sonko ci jàmm. nit su ko nit ñi bëggee. bàyyee ko ñi ko bëgg. waaw loolu jàmm moom bëggul Sonko. na bàyyee Sonko ñi ko bëgg c'est pas méchant. juróomeel ba na fexe. ñi nekk ci moom di def lu dul noonu ñu tégal leen teg leen daan ya war. Mm-hmm. ndax dana weddi tuumaam yowmal xiyaam ëllëg. juróom yooyu kese la. kese aw ma beneen soxla ci moom. seetaan naa benn vidéo nga ngeen koy joué acteur da ngay joué film yow. bien sûr. lii sa film la di. non non lii lii film télé la. Hmm? lii di film. mais film la. dañuy émission. parce que lii amul scénario parce que lépp la. non non lii amul scénario lu leer lay liñ programmé mooy question yi dañ ko programmé invité yi dañ ko programmé heure bi dañ ko programmé. mais mu am réalisateur. am en cinéma loolu scénario lañ ko tuddee. waxuma cinéma film la de. d'accord. film la àdduna yëpp film la. d' accord. Cheikh bi pare ngeen euh, xaaral ma liiral ko quelques commentaires parce que euh, <laughs> Cheikh bi euh, gars yi dañ laa bëgg de réew mi yow lay topp ngi lay ziar bu baax a baax maa la raw na mun naa la torop man tamit ah. Mhm. kii nee na moom wax dëgg yàlla xamul ban yoon la war a aw mais bëgg na laa gis parce que soxla na. Ah, kii boo demee këram man dinaa organiser bi si njukkal Cheikh Ahmed Sorano. bis boobu nag dañuy jàng alxuraan dañuy fecc dañuy tëgg lépp la ñuy def. ci dugal musique de. musique bu baax. alxuraan ak musique nga mixé ko. waaw xam nga lu tax. Sabel boo ko defee jabar dina la woote. non du problème xam nga lu tax même moo su dee nit ñi man leen bëgg. ku ne mm-hmm. na mel rek nga may fekk see. Mm-hmm. sabarkat bi bu amee sabar na ma seet see sabar. Mm-hmm. ki am alxuraan seet sama alxuraan ki am riiti indil ma seetee ma riiti c'est ça quoi mm-hmm, mm-hmm. mais pas damay organiser boole ko mais da nga naan ngoon gi waa saa si guddi gi waaw non pas ngoon gi ñëppay ñëw bu kii yi gi rek wàcc suufi yàlla gi da ngay mooy yàlla kii julli kii nangam après la vie continue mm. donc suñ ñëwee seet si ma ñi mën a alxuraan neen jàng bu alxuraan nga jeexee ngeen wàcc mm. man su ma bëggee saal dama koy am te du génn su nekk ci téléphone bi laa koy réglé am ko. da amoon projet wu euh, ay euh, euh, doomu garde pénitentiaire. ci si maa ngi ci billaay moo ma rey fu mu nekk di mhm. mois d' avril laay bàyyi maye xaalis nit ñu foog ne damay caaxaan. mois d' avril bii nii ñu dugg nii. bu yeggee du ma maye de. loolu de deux jours a si des comme ni. deux jours pare naa ñi ñaani nañ gaaw parce que deux jours a si des. maa ngi ci maa ngi ci affaire waaw. laata ñuy jeexal gis nañu jamono bi Sénégal bu tollantitation politique fu ñu toll. ñu faral di déglu ay kilifay diine euh, ñu ciy wax. ci la ma ko bëgg <laughs> c'est dafa am ngor. moo la rab su jàppee du bàyyi <laughs> du bàyyi moo la raw xam lu tax amoo yaram. <laughs> nit yi fi ne du am yaram. non. te bu jàppee du ñu bëri. Mhm. ne euh, kilifa yi bu ñu waxee xale yi ci réseaux sociaux yi da leen di saaka. waaw waaw mais xam ne day wax ci diine comme yow gëm-gëm yi nga am loolu war na ko teree wax li mu jàpp ne dëgg la wala war na ko teree wax li nga xam ne war a sauver askanam. non non non loolu terewut la non ñu ñu min leen saaga kilifa diine yi dañ leen mooñaaleeg saaga. waaw den leen mooñaale ak saaga su ma ko waxee lan lay tekki mooy den leen mooñaale muñ goo xam ne du yëg saaga mm-hmm. den leen mooñaale ak mbaax goo xam ne du fayu saaga mm-hmm. den leen mooñaale ak yiw goo xam ne du ñu sax dégg saaga mm-hmm. mais sëñ Mountakha ku koy tegtal saaga fan la koy gisee wala Cheikh Maye Niass wala sëñ Mbaye man Mansour du ko dégg du ko gis de du ko dégg du ay faaris leen loolu laa bëgg a wax quoi beneen ba ca des eh, ñoom magam lëndëm leen ñun ñoo leen dajul ñu làmb seen bopp xam nga wax da ngay wax ku lay dégg Mm-hmm. ñi leen di déglu ñu ngi wax ak ñoom de. Mm-hmm. mais ñun fii euh, da ngay toog kuy xas sëriñ si di leen saaga di leen wax lu bon di leen def loolu looy wax ak ñoom. Mm-hmm. c'est ça quoi ñoom ñu ngi wax de ñu ngi wax mais euh, ku jàpp ne suñ ubbiwul seen gémmiñ rek waxuñ kon xamoo seen cër ñu kurus la ñuy waxee. yebal ay quarante personnes yóbbu leen màkk ngir ñaan jàmm am ci réew mm-hmm. di gas di suul te yaa ngi nelaw macha allah bilaay ñu ngi wax ci wàllu baatin yaakaar nga ne cëslaay bi ci réew mi amoon ñàkku ko ci wàllu jàmm baatin nekkatu fi dem na oh mm-hmm. baatin moom amatu fi baytil moo fi am neen waa neen mm-hmm. li tax baatin amu fi <clears throat> barke nag des na ci réew mi waaye baatin jeex na ndax baatin day ànd ak sutura réew mi dañoo ñàkk sutura baatin day ànd ak dëgg réew mi dañoo mën a wax lu dul dëgg baatin day ànd ak jubal réew mi dañoo jubal baatin day ànd ak nekk ci dëgg réew mi nee ni kese moo fi ëpp doole. baatin day ànd ak ñàkk caaxaan réew mi dañoo bëri caaxal baatin moom amatu fi. am na nag ñu am baatin ñu ngi fi ba tey. Mhm. mais boo leen gisee rek da nga leen di xàmmee. jërëjëf mais fii am na ay borom sañse ñu yàlla def lu leen neex ñu mel nu leen neex di def lu leen neex. Mhm. Ah, am na fi man ci ñooñu laa bokk. jërëjëf Cheikh Ahmed. bëgg nañ lool ci euh, jàkkaarloo bi ñu amoon ak moom ci plateau spécial bi ngeen di faral di am ci Sunugal 24 l'information à sa juste valeur euh, retenez bien euh, tout le mois équipe bi dinañ